اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وبعد إخوة المستمعون لإذاعة خمس دين تحية مباركة من عند الله نزفها إلى حضراتكم وهي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala yàlla mi nga xamante ni moom moo bind mboole seen mbindeefoon yi am ci kaw suuf di julli di salmal ci yonentam bu tedd boobu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentam bi nga xamante ni moom moo xibaare te lépp lu mu xibaare dëgg la moom la moom la ñu tuddee al amin di ku nga xamante ni mooy ku wóor ki di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu xamal ñu ba pare euh, daf xam mu ñu xamal mu nekk lu ñu jëriñ parce que xam-xam bu nga xamante ni àndut ak jëf àndut dafay mel ni kon yàlla wax subhaanahu wa taala dafay mel ni mbaam bi nga xamante ne dafa saf ab njëgg njëgg moom du si jëriñu waaye dafay keneen lay jëriñam yooyu kon yéen yàlla subhaanahu wa taala mu xamal ni ginnaaw boobu ñu xamale nag mu def ñu ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo ci xam-xam boobu noonu di ko ñaan à chaque fois aussi tamit mu ñuy yokk li nga xamante ni moom mooy xam-xam euh, te mu ñuy wan lii di dëgg ba mu leer ñu nan ñi ne lii mooy dëgg mu waram bi subhaanahu wa taala lii mooy njubub waram bi subhaanahu taala mu wërsëgal ñu ñu topp dëgg googu topp njub googu bàyyeekoo fa yàlla subhaanahu wa taala ci di ko ñaan tamit mu wan ñu lii di safaanu dëgg di neen ak caaxaan ak lépp li nga xamante ni dafa sori njubug yàlla gi subhaanahu wa taala mu wan ñu ko euh, ba mu leer nañu sunuy bët xamal ñu ne lii kat ay nen la ay caaxaan la bu tere mu wërsëgal ñu mën a moytu loolu nga xamante ni ay nen la ak caaxaan yàlla boole ñu si ñi nga xamante ni saa yu ñuy dégloo waxtaan dañuy topp la gën a rafet ci waxtaan wa yàlla mën na loolu yàlla ñu ko yàlla defal incha allahu rabbi waqi di ñaan yàlla tamit mu dugal ñu wala mu boole ñu ci jaamu yàllaam yi nga xamante ni mooy yu sell yi jaamu yàllaam yu baax yi yi nga xamante ni yàlla subhaanahu wa taala daf leen di génne ci li nga xamante ni moom moo di lëndamaayu gu réer ak lant lënt suñu leen yóbbu leen ci ak euh, xam-xam bu leer nañ bu nga xamante ne dinañ mën a jaamu seen borom subhaanahu wa taala ci dëgg-dëgg jaamu. ci kaw loolu bokk yi ñuy déglu ci rajo xam sa diine. ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu sell nuyoo bu barkeel nuyoo bu bàyyoo ko ca borom bi subhaanahu wa taala te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di tegal ay xutba ñaari xutba ñu nga xamante ne sunu docteur Mouhammad Ahmad Lo joxee na ko ci ay bés yi paase. Euh, xutba yooyu dañuy ànd ak yéen te jàpp naa ne xutba am na ay njëriñ yu nga xamante ni war nañ settantal di ko jàngat euh, te bokk na ci njëriñ yooyu yi nga xamante ne xutba da koy joxe euh, tuidu linnaasi jalalata diinihim wa tuzakkiruhum bihi wa bi aadaabihi bokk na ci yi nga xamante ne xutba dina ko apporter nit yi moom mooy da leen di delloo day delloo nit yi yëpp ci màggaayu diine te leen di fàttali li nga xamante ni moom moo leen war ci seen diggante ak seen borom ak li nga xamante ni moom moo leen war ci seen diggante ñoom seen biir ak teggin yi nga xamante ni nit ki war na ko làmboowoo ci digganteem ak boromam ak ci digganteem ak nit yi te xutba occasion la bu nga xamante ni dafa répété wu par Euh, ñu siy jàngalante suñu biir li nga xamante ni moom mooy àq yu dox suñu diggante ak àq yi nga xamante ni moom moo dox suñu diggante ak suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci njëriñ yi nga xamante ni xutba da koy apporter jullit bi euh, fiha min at-targhib wa tarhib fa yuhaddiruhum min ad-dalali wa yuhabbibuhum ila rushdi euh, xutba dafay xemmem loo nit ki jaamu yàlla dafay xemmem loo nit ki julli dafay xemmem loo nit ki def li nga xamante ni moom moo di lu baax waaye tamit dafay xottu nit ki ci mu bàyyi lépp lu nga xamante ni ñaawteef la wala mbonteef la bu nga xamante ni mu ngi koy def mu xutba googu dafay ñëw mu leen di moytuloo li nga xamante ni ak réer la ak caaxaan la ak ay nen la waaye dafay ñëw tamit di leen bëgguloo li nga xamante ni mooy njub la topp yàlla borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci njëriñ yi nga xamante ne xutba dina ko apportel jullit bi euh, mooy ne xutba dafa nekk benn bunt bi nga xamante ne ci bunt utukaayu xam-xam la képp ku nga xamante ni dafay topp ab imaam topp ay imaam di leen teewee seen xutba mu tardé euh, jàngat yooyu muy muy muy mu leen di déglu di li nga xamante ne moom mooy rot ci ay xam-xam imaam bi di ko wax mu koy déglu di ko dégg su demee di ko nafaraat jëm kaa jëfee ci di ci ci biir semaine bi incha allah rabbi am nañ njort bi rafet ne kooku bu saxoo di sàlloo loolu dina nekk ci ñi nga xamante ne moom mooy borom xam-xamee waaye bokk na tamit ci njëriñ yi nga xamante ne xutba da koy apporter nit ki tamit euh, mooy aljumaa sababu li iltiqaa il muslimin Euh, aljuma dafa nekk sabab bi nga xamante ne jullit yëpp dañu fay tafe saafu wante baalu wante ak euh, ku nekk baalu sa morom ak keneen ka baal morom akam parce que am na ak yoon ki nga xamante ni dafay dafay am sunu diggante te duñ ko yëg kon occasion yu mel nii ndaje yu mel nii baax na nit yi dool di daje incha allah bu ñu dajee ñu saafu wante baalu wante ak yàlla subhanahu wa taala amaan na mu jéggal leen seen bàkkaar ci euh, safaan boobu comme ni mu wotee ci yenn xadis bu nga xamante ni euh, an ilbarra ibni azib qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimayn yaltaqiyaani fa yatasaafaxaani illa xufira lahuma qabla an yatafarraqa comme xadis bi ni mu ko waxee mu ne amul ñaari jullit yu nga xamante ni dañuy tase ñu saafuwante Euh, lu dut yàlla subhaanahu wa taala jéggal na leen seen bàkkaar lu jiitu ñoom ñuy taqale ko ci ci jotaay boobu noonu kon mbokk yi gis ngeen euh, euh, njëriñ yooyu nga xamante ne xutba yi la sàlloo na ko làmboo na ko loolu boobu tax ñu doon tegal xutba yooyu à chaque fois tey nag sunu xutba mbokk yi ñu ngi si ànd ak sunu docteur Mouhamed Ahmed Lo kon yéen ñi daan faral di déglu ci rajo bi mën ngeen ñoo déglu ci numéro bi ñu leen di dégtal mën ngeen ko déglu ci seen portable téléphone numéro bi mën ngaa composé 213 492 01 34 2 1 3 4 9 3 01 34 ku am lu nga xamante ni da koy laaj wala génneeku bi nga xamante ni am nga ko ci rajo bi nga xamante ni moom mooy xam sa diine wala ci website xam sa diine wala am na ay nasaaix ak ay dénkaane ak ay laaya biir yi nga xamante ni bëgg kaa laaya laaya mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci rajo bi nga xamante ni moom mooy rajo xam sa diine mën ngaa composé numéro bi mooy 31 52 77 25 15 31 52 77 25 15 incha allahu rabbi ñaari xutba la dañ leen tegal bu jiitu bi bu bu jeexee ñu tegal leen bu ci topp incha allahu rabbi kon dañu leen di bàyyi ak Cheikh docteur Mouhamed Ahmed Lo li yatafaddal mashkuran wa majuran incha allah wa jazakum allahu anna wa anil mustamiina xayra. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaah amma baad mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp. ragal borom bi tabaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw loolu ñu xam ne asalafu saalix muy ñi yaroo ci keppaarul alquran ak sunna ànd ak ne ñu dëddu woon àdduna lañ ñu bari woon ak jaamu yàlla lañ ñu xamoon itam yaatu yër yaatuwaay gi nga xam ne ni yërmaande sunu borom tabaraka wa taala na ko ànd ak loolu lépp fuñ ma sa toll dañ doon ragal li ñuy jëf ci say jaamu yàlla ñu bañ koo nangu moo tax borom bi tabaraka wa di wax ne ñi nga xam ne ci ba mu leen di tagg mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne suñuy def ci yoonu yàlla dañuy def ba àggal boole ko ak njàqare ragal ne ñoom li ñu def nanguwuñu ko Aïcha nettali ko radiallahu taala anha jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne ko ñiy jublu ci aaya jooju ci suratul muminuun mooy ñi nga xam ne dañuy woor joxe seen alal ba noppi ragal ñi bañ leen a nangul kon jëm li jaamu yàlla ci boppam jullit bi koy def du gaaw a naagu du gaaw a tagg boppam itam ndax dafa am ñaari gàkk yoo xam ne bu ci muccul rekk jaamu yàlla am mi ngi ci dansé maanaam mën naa yàqu benn bi mooy moom lii muy jëfee xamul ndax nangu nañ ba mu dee ndax gàkk yi tee nangu jëf yu baree bari la xëy na danañ ci ñëw ci beneen xutba waaye beneen bi nga xam ne mooy bu garaaw bi mooy jëf ji nga jëf ko ñu nangu ko ba àggal ba dencal la ko nga dem def loo xam ne day tax li nga defoon màbb loolu nag ci la waxtaanu tey wi jëm loolu lu garaaw la lu méttee métti ci la borom bi tabaraka wa taala aay bi nekk suratul baqara muy wax ne kenn ci yéen ndax bëggoon naa am benn tool misaal lay joxe benn tool boo xam ne tàndarma yaa ngay meññ raisin yaa nga fa di meññ dex yaa ngay daw ak ndox ma ci biir tool ba meññeet mi itam ma nga bari lool waaye waajoo ji dem ba mu yàgg mu màggat tële doom yi mu am itam màggaguñ ñi doon ay xale yu ndaw tool boobee benn call meer ñëw fa muy ngelaw lu méttee métti lu ànd ak sawara mu ñëw taal sawar taal tool ba muy tàkk mu di ko gis te fekk tële na ba amatul kàttan mënta fay doom yaat di ko gis te mënuñu ca dara ndax xale yu ndaw lañ mu ne ndax kenn ci yéen bëgg naa am situation bu mel noonu nee na nag noonu la leen di yàlla joxe di joxe misaal yi lu tax pour ngeen xalaat Abdullah ibnu Abbas mu ne loola xam ngeen lu mu doona nee na loolu ku jëf jëfam la ba àggal ay topp yàlla jëf ay topp yàllaam ba àggal nee na seytaane ñëw doxe ko gannaaw lakk jaamu yàlla yam defoon nee na misaal moom la suuf borom tabaraka wa taala du joxe kon jullit bi na bi muy xeet ci jaamu yàlla di jiima góorgóorlu di ko dëppale ak ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon di ko jéem a dëppale akuk sell goo xam ne yàlla rek a tax muy def bu loolu àggee ba mu am yaakaar ci ne nangul nañ ko ko ba dencal ko ko ca dencukaay ba war naa góor góorlu ba def lu koy ñoŋal ba du yàqu yooyu di yàq jëf nag kon ci la sun wax yi jëm moo tax ñu tudd ko tanbihul ummal ila muhbitatil amal ba ca jëkk moo di shirku billah bokkaale moo jëkk ci li nga xam ne day yàq jëf borom bi tabaraka wa taala wax na ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik bokk na ci li ma wàcce ci yow te wàcce woon ko ci yonent ya la jiitu moo di la in ash la in ashrakta la yaxbatanna amaluk soo bokkaalee sa jëf day màpp dafay yàqu wala takunanna min alxaasirin tey da nga gàtt wax waxante bu tàng la bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala mu di ci wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te kenn ku nekk xam na ne yonent bi moom du mën a bokkaale mukk waaye nag xeet wi ci boppam moo tax wax ji jóg ndax su fekkee seen yonent sunu yonent bi nuy roy moom la borom bi tabaraka wa taala jaamaar lool di wax ak moom wax jooju ne ko boo bokkaalee si jëf day màgg te da ngay kon keneen ku dul moom taxul ñuy wax kon jaam bi war naa góor góorlu bu baax a baax a baax ci ay jaamu yàllaam mu fexe ba yàlla kese tax fexe ba it lenn loo xam ne xaqi sunu borom tabaraka wa taala la bu ko jël di ko jox keneen ku moom ndax loolu mooy bokkaale bi borom bi tabaraka wa taala tuddee yonent yu bare bare bare bari ca suratul anam tagg leen wax seen i ngëneel ak baax ba àggal daf caa teg mu ne walaw ashraku su fekkoon ne bokkaale nañ ñoom yonente yooyu ma tudd kat la xabita anhum ma kaanu yaamaluun loolu ñu defoon lépp day màbb dara du ci baax kon kenn ku nekk war naa xam ne bokkaale dafay màbb jëf ndax dafa bokk ci borom bi tabaraka wa taala mu tëri mbir yi nga xam ne ay sunan la muy ay tëriin yoo xam ne dara du ci soppiku moo di ak jaamu yàlla ci boppam du tekki dara dara li feeg du bokk tawxiid dafa nekk muy wéetal yàlla kon ndegete tawxiid aaje woo ko yëmul ci ne sa jaamu yàlla na baax pour ñu nangu ko waaye itam ngir ñu gardeel la ko dencal la ko loolu da caa bokk nit ki kat kon mën naa am tawxiid sellal yàlla doo nga mu muy def jaarale ko ci sunna jaamu bañ nangu ko ba dencal ko ko mu wëlbati ku bokkaale ñu màbbal ko lañ ko dencaloon ba noppi la muy defati far ñu bañ koo nangoo ci waliyaasu billah yal nañu yàlla musal ci boobu Aïcha radiallahu taala anha dafa laaj benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis baa ngi saxiixu Buxaari ku ñuy wax Abdullah ibni Judaan mu doonoon ku siiw ci def lu baax di woo miskin yeeg fuqaraaw di leen jox ñam ñuy lekk fu mu gis koo xam ne dañoo jalgati xaqam wala tooñ ko mu jóg taxaw ànd ak kooka ba mu jot xaqam loolu la siiwe woon ci ak ceddoom waaye nag ci bokkaale la faatu jëfam yu baax yooyu mu doon jëf xaw a lënt nag ci soxna Aïcha radiallahu taala anha mu laaj ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa nafaahu dalik loolee mu doon def ci lu baax dara la ko dul jëriñ ndax amul benn bis boo xam ne ñaan na yàlla mu jéggal ko bàkkaaram maanaam gëmut yàlla ci gëmin wi nga xam ne noonu la ñu war a gëme yàlla moo tax lam yàqul yow man rabbi fir li xatiati yow ma diin ñaanul yàlla mu jéggal ko benn bis bàkkaaram kon tawxiid daf fay nekk ñi door a nangu ne nit ki baax na waaye su fa nekkut nag ak lu mën a def lu man a doon mën naa baax ci aada waaye ca diine moom baaxul ca diine baaxul ndax loolee muy def borom bi tabaraka wa taala mën na ko koo fay fii fi àdduna ndax yàlla ku def dara ku nekk mu fay la ko waaye àllaaxira moom du fa am dara du moo tax lenn ci borom xam-xam yi dañoo firee li suñ borom tabaraka wa taala di wax ya fa man yaamal mitqaala darratin xayran yara ku def lu toll ne aw fepp ci aw yiw dana ko ñu wax ne bu fekkee ni yéefar la fii fi àdduna lañ ko koy faye su defee lu baax yàlla du ko ko fay ëllëg waaye fii la ko koy faye ñetteel ba wala ñaareel ba sax bokkaale moo jiitu ñaareel ba kon mooy tub bi génn diine lislaam nit kaa ngi woon ci diine ji di dund doon ab jullit ba mu yàgg mu xëy xëy ne bàyyi na lislaam dem ci jeneen diine wala yaasu billah li ko wutale ak bokkaale gi weesu mooy kay bokkaale mën naa jàpp ne moom mi ngi ci diine yi defe ne mi ngi jaamu yàlla ndekete mi ngi jaamu keneen wala muy jaamu leneen te yëgu kii nag moom dafa déclaré ne moom bàyyi na génn na ci diine ji dema yoonam kooku mooy ku ku tubbi borom bi tabaraka wa nee na ku tubbi faatuwaale ak tubbi nee na ñooñu seeni jëf màbb na seeni jëf màbb na wa man yartad minkum an diinihi fa yamat wa huwa a ulaayika a amaaluhum fi dunia wal axira seen jëf ji amalatu leen njariñ li defoon ci lu baax lépp day yàqu foofu nag borom xam-xam yi génn nañ fi benn masala moo fa yamut wa huwa kaafirun tënk boobu daf am njariñ ci tub bi continuer ca tubbi googee ba faatuwaale ko li yàlla wax waaye waxul képp ku tubbi ba mu yàgg mu ne ci tuub borom xam-xam yi ne ndax su fekkoon ne dafa nekk ci lislaam yàlla dogal mu dem aji aji màkka bi mu delsee mu tubbi di dem ba mu yàgg mu tuubaat delsi ci lislaam ndax aj da koy waraat na mu ko ware woon bu njëkk mu war a ajaat geneen aj wala aj bu njëkk ga baax na borom xam-xam yi ne ko aj bu njëkk ga baax na su fekkoon ne faatuwaale na tubbi ga day kon daram baaxut ndax fa yamut wa huwa kaafirun la borom bi wax waaye nag ginnaaw faatuwaalewut ak tub waaye dellusiwaat na ci lislaam te jaamu yàlla gi ci lislaam la ko defoon ci baaxu sunu borom tabaraka wa taala da koy accordeel jaamu yàlla am kon daal ci tub bi faatuwaale ak tub bi kooku jëfam yam masa def yépp yàqu donte ci biir lislaam la ko defe woon itam tub bi màbb na ñetteel ba moo di ngistal ngistal nag ay degré yu bari la bokk na ci yi ci gën a suufe nit ki di def ak jaamu yàlla di ko rafetal ndax nit ñaa ngi koy gis comme ku taxawal ci kanam aw nit di julli ñaari rakka rafetal ko ndax xam na ne nit ñaa ngi koy gis mu wóor ko ne bu wéetoon nii mu koy rafetal du ko rafetale noonu kooku mooy bi gën a suufe ci ngistal waaye nag day yàq jëf day tax jaamu yàlla googu ci boppam duñ ko nangu wala suñ ko nangoo dañ koy màbb ba ca yées mooy li muy def lépp mu jublu ci àdduna moo di ay jaamu yàlla am loo xam ne àllaaxira lañ ci war a wut mu di ko wute àdduna kooku mooy bi ci yées moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa ne man kaana yuridu alxayaata dunia wa zinataha koo xam ne àdduna li ci nekk rek moo la tax a jóg ab taaram ak ya fa nekk nee na nu waffi ilayhim amalahum fiiha jëpp jëf joo xam ne jëf nga ko fi yàlla nee na danaa la ko jox lépp ba mu mat sëkk wahum fiiha laa yubxasuun ne du ma ca wàññi dara waaye nag ulaika alladina laysa lahum fi alaxirati illa annaar ginnaaw àdduna kese ko taxoon di jëf ëllëg moom sawara rek la fay am waliyaadu billah wa xabita ma sanau lañ defoon ci lu baax lépp day màbb wa baatilu ma kaanu yaamaluun kon nanguluñ leen te suñ leen nanguloon itam dañ koy màbb kon nit ki ci boppam li ñuy wax tasxiixu niya li muy bëgg a def mu fexe ba wéral yéeneen ba daray àdduna nekk ci bu doon àdduna lay faggu it la nekk ci xolam mu yéene ci mooy na dugg ci loxoom ba mu jëriñoo ko ci lu jëm ci àllaaxira kooka mooy ki nga xam ne mooy nitu diine ci kaw suuf waaye saa boo xamee ne jiital na àddunaam ba fàtte diineem kooku alkadeen koy dikkaloon wala yaasu ñeenteel ba mooy xotti ormay yàlla saa boo xamee ne nit ki wéet na saa boo xamee ne nit ki wéet na xam ngeen ne mooy yàlla te feeñal ko mooy bàkkaar bokk na ci bàkkaar yi gën a ñaaw ci bàkkaar yi waaye nag mooy yàlla koo xam ne itam nit ka da koo saxoo te di ko nëbb la muy feeñal ci bitti bokkul ak la ne ca biir kooka itam ci yi gën a garaaw la bokk ndax day màbb jëf saxaabi bi ñu wax sawbaan radiallahu taala anhu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee bu yowmal xiyaamee danañ indi aw nit ñoo xam ne ci sama xeet wi lañ bokk danañ indi aw nit ñoo xam ne ci sama xeet wi lañ bokk nee na ñooñu liñ yor ci ay xasanaat maanaam jëf ju rafet dafa toll ne montagne yi muy montagne yu mag te gudd lool te doon ay kilomètres yu bari nee na seeni xasanaat noonu lay toll nee na borom bi tabaraka wa taala yëkkati seen xasanaat yooyu seen jëf yu baax yooyu ba ñëpp gis ko mu sànni ko mu doon pënd buy naaw kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bokk na ci mashahid yowm alqiyaama muy ya xam ne nit ñi danañ ko gis bu keroogee aw nit ñoo xam ne dañ leen di indi ñu bokk ci xeer bi seen jëf yu baax yañ jëfoon bari ba tol ne ay montagne yàlla sànni ko mu doon pënd naaw dem bi mu waxee saxaaba yi ñu ne ko waaw wax nu ñooñu ñun ndax nun kat dañ caa ragal a bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñoo gi yéen bokk lu ngeen doon maanaam ci xeet wi lañu bokk ndax dañuy julli comme ni ngeen di jullee dañuy woor ni ngeen di woore seen naafile yi ngeen di def guddi sax ni ngeen koy defe lañ koy defe mu ne nag kon lu leen ko teg mu ne gayra annahum ida xalaw bi maxaarimi illahi intahakuha mu ne waaye saa bu ñu ak yi yàlla xaraamaloon dañuy xotti ormaam saa bu ñu wéetee ak li yàlla xaraamal dañuy xotti ormaam bu ñu nekkee ci bitti nii boo leen gisee moom tubaarakallah waaye bu ñu wéetee rek marritali wéet nag noonu lay dikkee doomu aadama ci dana ko dikkee wéet ci néeg boo xam ne moom doo nga fa nekk fàtte ne boroomam a ngi koy gis dana ko dikkee ci wéet ci kaw nekk foo xam ne nit ñi xamewuñ ko fa léeg-léeg moykati yàlla yi suñ bëggee mooy yàlla ci turu prisme dañuy génn seenum réew dem ci meneenum réew cëppeelu foo xam ne kenn xamu leen sooy dugg ko génn nag looy def lu nekk ña lay gis xam ne benn waaye ngee rek buy def nanga mooy xamuñu ku mu doon mu wóor la ne lii mënoo ko woon a def fa nga dëkk ndax koo jaar ña xam ne diwa nga nee kon loolu ci wéet la bokk ki nga xam ne nag fexe ne ba la nëbboom ak li feeñ lépp doon benn wóotewut ci kaw loo xam ne nekkul ci biir kooku mooy ki nga xam ne am nañ yaakaar lool ci ak muccam ci jëfam ñoom waaye di feeñal ca kaw te boo wéetee xotti war may yàlla yi kooku ci boppam day màgg jëf yu mel noonu nag doomu aadama du ñàkk njuumte waaye li ñu bañ mu doon aadaam maanaam saxu ko juróomeel ba moo di joxe ba àggal ki ngay jox nga di ko won ne ko man maa la dimbali bu dul woon ak man doo am koo jaar romb ci moom ne xanaa gisoo diw li yor maa ko ko jox loolu moom la ñu tudde man borom bi tabaraka wa taala nee na seenu joxe alal bu leen ko yàq ci kaw di ko feeñal ci anam gu demee noonu di naqaral nit ki di ko won ne ko yow maa la jox wala nga di ko jéegaane ci yeneen nit di wane ne bu dul woon man ba tey du sàngam nangam ak nangam dal na ko ndax maa ko jox loola kon loolu ci boppam ci liy màbb jëf ci la bokk juróom-benneel ba moo di yëkkati sa kàddu ci kaw kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi loolu nag dundu yonent bi aku génnam àdduna ñoo ci yam noonu la ko boroom xam-xam yi waxee su dee dund jaaduwul ci nit muy ñëw di taxaw fi kanam yonente bi alayhi salaatu wasalaam di yëkkati kàddoom ca kaw ba mu génnee àdduna ba nekk ci xabroom bu tedd ba itam jaaduwul nit ñëw di taxaw fa xabru ba di yëkkati kàddoom ca loolu dañ ko tere day màbb jëf borom bi tabaraka wa taala ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen yëkkati seen i kàddu ci kaw kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tajharu lahu bil qawl bu ngeen di wax bu leen dëgëral seen kàddu ci kaw wax leen ak moom wax ju yem ka jahri baadikum li baad comme ni ngeen di waxtaane seen diggante kenn ku ne di yëkkati kàddoom ak pas xaqaay ak a mbóorans bu leen ko defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu ne an taxbata amalukum wa antum la tashurun liñ ciy ragal mooy seen jëf mën naa màbbe ci loolu te du ngeen ko yëg boroom xam-xam yi boole nañ ci yëkkati sa kàddu ci kaw kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu waxi xam ba àggal ne nii la nga ñëw yor sam xel ne nee la weddi la mu waxoon jëfe leneen kooku yëkkati kàddu ci kaw kàddoom la maanaam juuroog sunna yëkkati kàddu ci kaw kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la moo xam nag da ngaa yëkkati sa kàddu bopp ne man nii laa ko gisee ndax sama xel lii la nangu wala da ngaa jël kàddu yeneen doomu aadama ak ku mën a doon moo xam da nga ko jàppe wàlli wala sëriñ wala xeet borom xam-xam wala lu mën a doon wala boromum ngir nga ne sama imaam wala sama sëriñ wala sama cheikh wala lu mën a doon lii la wax te mu wóor la ne loolu juyoo naag wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa yëkkati nga kàddu ci kaw kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ci li màgg jëf ci la bokk yonent ci yàlla mosal moo tax borom bi tabaraka wa bi muy tagg nit ñi bokk na ci yim leen taggee mu ne ñi nga xam ne suñ nekkee fa yonent yàlla ba dañuy damm seen baat yaxudduuna aswaatahum dañuy damm seen kàddu mooy suufeel ko nee na ñooñu ñi nga xam mooy ñi nga xam ne yàlla defaral na leen ci seenu xol taqwa ñu ragal yàlla yàlla jéggal na leen yàlla waajale na leen yool bu màgg yàlla na yàlla boole ci ñooñu xam ngeen ne baatu yaxuduuna ah liñ koy faral di jëfandikoo mooy bët damm ab gis la faral di wax waaye nag damm kàddu moom buñ ko waxee kooku day wone teggin bu jéggi dayoo bu màgg a màgg bu réeréy ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak loolu nag suñ koy jàngat ci jamono yi faw xel yi dem ci kàccoor yi nga xam ne jël nañ seen aada jamono yu nekk ca réewi tugal ya muy doyadal jéem a doyadal sax la ñuy wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn mënu koo doyadal mënees koo suufeel delloote nañ ci seen mbon ga di génne ay caricature di génne ay ay film yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lañ ciy wax lu ñaaw loolu day wane seen toroxte ak seenu dellu gannaaw ak seen liñ doon wax doon ay ay principe yuñ doon yëkkati ci kanam nit ñi di leen ko naxe naan leen ormal doomu aadama nit ka lu mu fas des ko ko war a ormaal nag yu mel noonu yooyu yëpp borom bi tabaraka wa taala dañuy won benn par benn di nu won ni ñii yi ñuy woote lu ñuy wax seen làmmiñ la waaye du luñ gëm ndax suñ gëmoon ne doomu aadama des ko war a respecté xalaatam bu mu yor bu nekk nga fonkal ko ko nam ko fonke ndax mu mën laa fonk yow noonu ñu koy bindee di ko wax su fekkoon ne loolu lañ gëm duñ fekk lu ëpp milliard ci kaw suuf ci ay jullit yor seen pas-pas ñu seet ka nga xam ne ñoom ñëpp moom lañ gëm topp ko mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ci moom wax joo xam ne yu ñaaw la kon loolu ci boppam daf muy wan rek civilisation boobu rek wala loolee ñu xam ne suufe na ko ak dellu gannaaw boo xam ne mi ngi koy dellu gannaaw ba ñëpp di ci teg seen bët kenn ku nekk xamoon na ne liberté ni ñu ko doon wootee ci réewi tubaab bi defoon nañ ne nun ñooy suñu sëriñ ci loolu kon nag suñ demee ba réew mu toll ne France mu xëy ni jigéen ci boppam duutuñu ko may muy muuru su fekkee daa bëgg a suñu école wala muy liggéey ci suñ administration kon kooku daf ñuy wan ne ndekete loola luñ doon wax ci ay làmmiñ la waaye nekkul loo xam ne luñ gëm ci xol yi la kon ñooña su jullit bi amee xel dana xam ne borom bi tabaraka wa dafa jot nag mu taraxal leen ci kanam nit ñi bañ xam ne yiñ doon woote yi ñuy wax ci làmmiñ la waaye doonut loo xam ne luñ gëm la su ko defee jullit yi gën a gëm seen diine gën see jàpp gën a nag présenté l'islam ci kanam nit ñi luñ ko gën a ŋàññi ñu gën caa jàpp loola moo leen di toroxal moo leen di suufeel juróom-ñaareel ba moo di waxal suñ borom tabaraka wa taala lu mu waxul loolu nag buñ ko waxee jubluwuñ ci fen waaye mooy fekk loo xam ne da nga caa dogu ne lii du am yàlla bu ko def maanaam mel ne da caa am dalil te fekk amu ci dalil al muslim daf ñoo nettali xadis boo xam ne xadis jundub la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali dafa am ñaari nit ñoo xam ne kenn ki dafa sàggan lool bari lool ay càggante ki ci des doon lool kuy ci diineem jamono yu nekk ñuy waxante ñoom ñaar di waxante rek kii lu ci diine di ko ŋàññi ba mu yàgg am benn bis ku sàggan ci mer ne ko bàyyi ma ak saa borom bàyyi ma ak kooku ne ko diñ naa ci yàlla ne yàlla du la jéggal nit wax na njuumte yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bi waa ji waxee loolu yàlla ne ana kan kii di giñ di ma wax ne doo def nàngam te fekk loolu amu ca firnde maanaam amu ca dalil kooku la daa ne maa ngi seede ne jéggal naa diw sàngam yow mi waxoon loolu maa ngi seede ne màbb naa sa jëf kon loolu bind la boo xam ne bu ma ta bàyyi xel la jaami yàlla yi seenu mooy yàlla nuñ mala mel lépp jullit bi lam ca am mooy laayanteeg ñoom biir te xam ne yitteem ju ëpp nag ca la mu war a gën a sonne mooy boppam waaye nag na laa biire mbokki jullitam ku jub alhamdulilah loolu lu baax la ndax am nga ca yoon yow mi ko doon jubbansi ku féeteer lu bañ nga bàyyi ko boroomam bul ne mukk boromam du ko jéggal ndax borom bi tabaraka wa taala képp ku faatuwaale tawxiid dana la jéggal moo xam nag da lay mbugal ba noppi door laa jéggal wala day jékki-jékki jéggal la waaye waat ne yàlla du jéggal nit wala nga waat ne nit a nga sawara te amuloo ci dalil kooku ab jullit du ko def day màbb du jëfi ka ko def juróom-ñetteel ba te mooy bu mujj bi mooy bañ lenn ci li nga xam ne borom bi tabaraka wa taala da ko wàccee ci ab yonentam ci diine lislaam lenn lu ci nekk loo xam ne sax na ci alquran wala sunna jullit bi yëg ne bañ na loolu ci xolam donte mu ngi koy jëfee sax na xam ne jëfam màpp na borom bi tabaraka wa taala ne dalika bi annahum karihu ma anzala allahu fa axbata ñooñee nga xam ne dañoo bañoon lii yàlla wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba am ciw naqar yàlla nee na loolu mooy sababus mu màbb seeni jëf kon julit bi na wattandiku am loo xam ne lu sax ci sharia la ba noppi mu di ko saboote mu di jaw jëmee ci làmmiñam loo xam ne lu ñaaw la léeg nga gis ñoo xam ne bu ñu bëggee saboote ñenn nit ñi dañuy wax ne borom bu buy gàtt yi wala borom sikkim yi wala borom kooku musiba la mën naa màbb jëfi nit wala ñii di muuraayu di def malaj malaj nangam nàngam wax jëmale ci loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko santaane yàlla santaane ko ci alquran nga wax ci sa làmmiñ jëme ci kàddu goo xam ne guy wane ne yow ñaawlu nga lii ci sa xol la kooku day effacé jëf li nga jëfoon yëpp nga delluwaat zéro waliyaasu billah yàlla na yàlla mosal ci loolu léegi la ñu gis ku dem ba chariatul islam bi nga xam ne moom la yàlla wàcce woon nit ñi war cee tënku ci seen adduna ak seen nga dem ba gis koo xam ne day tudd ne jullit la ba noppi lëm gëm ci xolam mooy sharia bi mënatu yoon àdduna léegi maanaam dafay mel ni daal waxtu woom waroon a jeex jeex na foofu la war a yem kooku wala yaasu billahi luy màbb jëf la ndax dafay dugg ci biir bañ loo xam ne borom bi tabaraka wa taala da koo ko indi wàcce ko mu doon diineen lépp lu wàcce ci diineen moo xam loo man la wala loo mënut la la nga mën jëfeel la nga mënul bëggal ko rafetal sa yéene ba ba nga koy mën waaye lenn loo ci xam ne bañ nga ko rek te mbóor la ne sax ci diine ji la kooku wala iyaasu billahi day yàq jëf allahuma ainna ala xusni ibadatik wa ainna ala an nuxlisa laka wala nushrika bika shay'a allahuma inna naudu bika min mujibati zalal wa muxbitati al amal wa nasaluka alsabata ala alxaq xata nalqaaka ya karim wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokki jullit yi ñoo ngi delloo gi yéen ca waxtaanu maas googee nga xam ne amuñu moroom maas googee nga xam ne fa la yonent ba sallallahu alayhi wa xam ne mooy seekalu nit ñu baax na ña jël woon seen diine jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu di leen jàngal di leen yar di leen tarbiye ci alquran ak sunna xutba kon jëmul ci njàmbaar yu mag ya ak jaloore yu mag yi nga xam ne moom la saxaaba ya doon def jëmul ci coono yu metti ya jëmul ci xam-xam bu bari ba ak tasaare ga ak nañ ko doon dunde jëmul ci seen sàmm bu metti ga itam jëmul yi ci seen dëddug àdduna ga waaye mi ngi jëm ci geneenu wet mi ngi jëm ci wetu ñi nga xam ne sunu boroom nattoo na leen bàkkaar tañ bokk ci saxaaba ya bi nga xamee ne lislaam ñëw na madina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne loolu bu yàgg la ëpp na fukki siècle ak ñeent yonente bi alayhi salaatu wasalaam nam daan jëflanteeg saxaabaam yi mooy toog fa jàkka ji ñu wër ko mel ne weer boo xam ne biddiw yi dañ ko wër ci lëndëm ga muy jàngale di yar di jottali nit ñoo xam ne ñu ngi doon dund dund bu lëndëm mu war leen a génn ci lëndëm boobu indi leen ci leer benn bés ci jàkka yi ñu toog saxaaba yi war ko fees dell ansaar yaag muhaajiroon ya boroom xam-xam yaag ñu baax ña yépp toog di déglu sallallahu alayhi wa sallam ñu jekki-jekki seen soxna su muuru jigéen dugg ci jàkk ji yonente bi sallallahu alayhi wa seen ko mu dugg di ñëw mën a tekk te wax jëm doon wax saxaaba yi geesu seen ne dafa am kuy ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tekk soxna soosee continuer di dox ndànk ba agsi taxaw ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nuyoo ko yow yonente yàlla bi day man bakkaarum njaaloo daf maa gaar ma ñëw di wut ku ma laabal loolay samay tànk foofu nan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën na laa jékki-jékki ne ah yéen ñi fi toog gaaw leen témoin yéen a ko déggandoo ndax su ko ñeent témoin rek mu wax ko ci kàddu boppam kon atte ba daal lay dal mënoon naa def ni ñenn ñi def suñ déggee ku mooy yàlla wala ko tàbbi ci bàkkaar mel ne dañ caa bég di ko tasaare waaye deful noona xar kanam ba dafa daal di soppiku mu mel ne ku mer mel ne ku am aw naqar daal di koy du mooyu mel na déggut li mu wax ndaw si jaaraat ca ñaareel bi yoon mu dummóoyuwaat mu jaaraat ca ñetteel bi yoon ne ko dafa ëmb ci njaaloo kon jigéen a boog joo xam ne la shakka ne am na lu nekk ci xolam ci pas-pas ak ngëm boo xam ne moo defar xol ba ba tax mu feeñ ci jërëm mu mën a topp jóg seq yooyu jéego ndax ndaw si jamono yooyu dafa yaakaaroon ne laabal googi muy wut si mooy rekk ñu dóor ko ay yar wala ñu xas ko ci kanam nit ñi déedéet xamoon na ne li koy xaar moo di ba bakkanam bi ci boppam moo war a génn àdduna ndax ku sañu woon la kon day lu réeréer yi moo ko yëkkati tànk yu mag lay dox ña ay mooy ña ak mooy daloon ca saxaaba ya suñ leen di jàngat dañuy dem ba yëg ne ñooña lañ yoroon ci ngëm yàlla dem nañ ba àgg ci daraja yi lu bari ci suñ nit ñu baax tey nga xam ne ñoom la ñuy def bu ñu leen tuddee ñu ne ku baax xaangoo ñooñee ñu gàllankooroon ak mooy yàlla daloon leen ñooñu ñoo gën suñ lu bari ci suñ ñu baax ñi tey lu baree bare bari ci ñun tudde tey ay toppkati yàlla ak jaamukati yàlla ak dëddukati àdduna boo leen méngalee ñañ jàppoon ne dañoo tàbbi ci ak mooy yàlla ci jamono jooje xool seen histoire da ngay rus ngir ngëm gañ làmboo woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko tontu gannaaw boo xamee ne ci yoon ndaw saa ngi baamtu rek di wax li muy wax dal di wax ne nañ daal di taxawal ci moom ak tëb yàlla ndax amaana ndaw si li muy wax da xamut amaana dafa juum amaana am lënt dafa am te am lënt tax kat nga bañ a jàllal atte ba moo gën nga jàllal atte bi nga jàllal atte ba ci am lënt maanaam lënt ñëw moo xam ne gàllankoor na la ba tax nga bàyyi atte ba mu jàll bañ koo def loolu moo gën moo gën a dal xel moo gën a yàlla nga sukkandiku ci am lënt jàllale ab atte kooku ab règle générale la koo xam ne l'islam da koo jàngale moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëbalu ten muy gëstu ndaw soos yi wala mu naan nañ ma ko déglu wala nañ ma seetal ba xam lu mu doon dund lan mooy ay jikkoom ndax yooyu yépp dafay dugg ci gëstu mbootum jàmbor te loolu yonente bi sallallahu wa sallam da koy mas naa taxaw wax ne mboolem yéen ñi nga xam ne da a wax ne gëm ngeen ci seeni làmmiñ te ngëm àggagul ci seeni xol bàyyi leen jullit yi ngeen di jëw bàyyi leen awray jullit yi ngeen di topp ndax kat ku topp awra yi mbokkum jullitam yàlla dana topp sa awra te ku yàlla topp sa awra nee na dana la toroxal donte sax ci sa biir kër ki daan wax loolu kon toppatoowut loolu kenn mu seet awra jàmbur mu giyaasu ne ko demal demal ginnaaw da ngaa am demal ba ba ngay am doom ndaw sa daal di dem demee ëmb diir ba mu ëmb dellusiwaat loola nag doon loo xam ne lu doy waar la la tax bu ne ko demal kooku taxawaayub lislaam la ndax dafa ëmb doom joo xam ne deful benn bàkkaar kon doonte ëmb ba soriwut it kenn sañu ko ca kon lislaam moo jëkk a sàpp sàmm ñépp li ñuy wax xuquuqul insaan muy droit de xale ba nekk ci biir ba nga xam ne soreegul tax na atteb yàlla ñu téye ko lu ma juróom-ñeenti weer weeruñ ko ndax xaar xale boobu jub kon loolu mooy sàmm droit de l'homme wala droit de l'enfant wala droit ku juddoobu sax danañ jële ci loolu ne ngëm gu dëgër moo nekk ci xolub ndaw soosu ndax kat ba mu ne ko demal mënoon naa dem teggee ko bu faw te du dellusiwaat te du yàgg ko yàgg ba mu yebal ay nit di wax ne dem leen seetali ba ndaw si fi masoon a ñëw kon yi da koy bàyyi rek mu jàll noona mu wéy waaye borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne ñu baax ñi am na ci ñoo xam ne su fekkee ne def nañ ñaaw téef ñu baax ni am na ci ay jëmm yoo xam ne saa bu leen ñaaw téef dalee muy bakkaar wala ñu tooñ seen bakkan mooy tooñ seen bopp saa bu leen dalee ñu fàttaliku yàlla te suñ fàttalikoo yàlla dal koy jégglu ndax xam nañ ne yàlla mooy jéggale bakkaar nee na loola moo tax ñooñu duñ nuur mukk ci bakkaar li fekk ñi ngi xam ne def nañ bakkaar boobu saa buñ ko yëgee rek tuub soxna sa ëmb doom ja juróom-ñeenti weer doom ja judd guddi gëm juddoo bi mu xëyee ci suba si la ko laxas ci morso dikk ñëw fi yonente bi sallallahu alayhi wa yee xam te lu wut jël lu wut gannaaw ci décision ba mu jëloon te du caagi ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo yónnee ab armée wala mu yónni police ne leen dem ma ndaw sax ñi dem xëcc ko jële ko ci néegam déedéet moom ci boppam moo dikkal boppam mais yow yonent bi yàlla bi laabal ma ci njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool gone gi mu doon ba tuuti xool ba metti lool woyof ndax kooku mooy yonent bi nga xam ne yërmandeem dafa dajoon lépp yërëmoon na ba yërëm mooykati yàlla yi yërëm ba yërëm picc yi yërëm ba yërëm mala yërëm sax ba yërëm ku dul jullit kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi daf ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga doon yërmaande ci bindeef yi waxut na ko ci jullit yi waaye ci bindeef yi kon noonu la meloon mu geesuwaat ko ne ko dellul boo demee nga nàmpal ko ba mu fex ndaw sa delluwaat këram kon foofu droit de l'enfant feeñaat na mënoon nañoo def atte bi jël xale bi jox ko ku ko nàmpal ndax loolu lu siiwoon la ci société boobu jur doom ba noppi keneen nàmpal ko waaye deful noonu dana ko dellul boo demee nga nàmpal sa doom kon mu dellu bu ko neexee sañ naa toogaat ñaari at ndax nàmpal mën naa mat ñaari at ci lislaam kon loolu lépp wut ab délai boo xam ne ubbi buntu bi yombal ndax kat diir boobu ñu ubbi yépp bu neexoon ndaw si mu dem toog tuubu borom bi tabaraka wa mën na ko jéggal waaye ngëm gi ci xol bi moo ko bàyyi mu toog këram mu dellu nàmpal ko ba nga xamee ne ab nàmpam jeex na ba mën a lekkal boppam mu daal di fab gone ga ànd ak moom dikk leewu ko xale bi yor morceau mburu ci loxoom yaay ji jox ko loola la mu ci jublu mooy waxaale yonent bi ne ko xale bi mën naa lekk léegi mu del siwaat ne ko tahir ni ya rasulallah yow yonent yàlla bi laabal na kon yonent bi sallallahu alayhi foofu la muy yéeg kenn xamut lu mu doon ndaw seet la muy yéeg kenn xamut lu mu doon yonent bi jël xale bi yoral ko boppam daa di laajte kan mooy yar jirim bi sàmm ko taxawu ko defar ko te ëllëg maag moom nooy bokk fu nekk ci àjjana kenn ci ansaar yi jóg fab xale bi kon taxawaay bu doy waar bu daw yaram boo xam ne ndigalul yàlla moo taxaw moo tax kenn mënta dellu gannaaw yonent bi mënta dellu gannaaw ndaw si mënatu dellu gannaaw kon ngëm gi ci xol moo xëcc nit foofu puus ko mu ñëw déclaré mbirum boppam te ngëm googu ci xol bi la nekk kon mënta génnaat ci diggante bi loolu moo tax ndaw soo si taxaw mel new doj loolu nag mooy yarub lislaam wa daru zahira al ismi wa batina bu ko borom bi waxee bàyyi leen li feeñ ci bàkkaar ak la ca nëbbu loolu amul benn régime moo xam police la moo xam lu mu mën a doon ci àdduna li nga mën a tere nit ñi mooy li ngay gis ci bitti waaye la ca biir kooku lislaam rek moo mën a àgg ci di wax na nit ki bul def nangam muy taxaw di ko bañ a def ndax biir ba lay defar bi liy xewee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen jël leen ndaw soo si ngeen takkal ko yéeréem ba mu dëgër ba dara du feeñ ci yéeréem ngeen yóbbu ko dem ak te bi yàlla wax ngeen def ko ci moom ñu daal def noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko defee ba àggal ñu ñëw yëgal ko mu ne nañ ko defar ñu defar ko mu ñëw taxaw di ko julleel boppam Omar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu ah yow yonentu yàlla bi da ngay jullee ku njaaloo alayhi salaatu wasalaam mu ne ko waat naa ci yàlla ne ndaw si tuub na tuub goo xam ne suñ ko séddale woon juróom-ñaar fukki nit ci waa Madina ñoo xam ne dañoo def ay bàkkaar tuub googu mën na leen a yóbbaale ndax xam nga ak tuub gu gën a sell nit ki jël bakkanam joxe ko ngir yàlla kon tuub gu gën a sell googu amul kon mbokki jullit yi loolu mooy lislaam force ak kattan boo xam ne ci biir xol bi la nekk xamul ak doyat waaye nag yërmaande joo xam ne su duggee ci xol bi ak nooy la àndal boo xam ne day gën ba nga jàpp ne sax kooku yërmaande ji tax na mu feebal waaye nag bu àttab yàlla taxawee nag feebal amatul kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la joo xam ne it bàkkaar lu mu rëy rëy bu borom tuubee borom bi tabaraka wa taala jéggal ko diine la joo xam ne defukaayu yiw la it yoo xam ne nit ki mën naa def aw yiw mu yëkkati ko ba mu ànd ak yonent bi yàlla place ca àjjana kon loolu mooy diine lislaam lii nag buñ ko xoolee danañ gis ne war nañ koy jàng ay leçon yu bari bokk na ca ne lislaam diine ju maandu la diine la ju maandu justice ci lislaam buñ koy wax dafa doon loo xam ne xàmmewul mag ak ndaw xàmmewul góor ak jigéen xàmmeewul ku am daraja ak ku amul daraja bu xasee di kam tege ci kawam xaw daa war a tege ci kawam rek su tegewul ci kawam su boobaa loi tekkeetul dara amatul benn jëriñ ko war a yem ci kanam loi waaye loi loi suñ ko tuddee ñu ne am na ku mag koo xam ne loolu tege ci kawam am na borom daraja am na borom alal yoo xam ne bu ñëwee daa war a cëpp-cëpp ci kaw ñu néew doole ñu ñàkk solo su boobaa loi amatul ñu bañ koo bind moo gën kon loolu mooy lislaam ñépp lay mane moo tax bañ dikkee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw su sàcc ñu ne ko ah kii dëkk dafa bokk ci banu maxsuum ñu ne nu muy def ñu ne nañ yebal Usaama ibnu Zayd Usaama mooy koo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko bëggal boppam ñu ne ko demal nga tinu ndaw si ndax ñu bañ a dagg loxoom Usaama ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ne ko ah am ndaw su sàcc li soo xam ne ay yooni yooni yoon da koo def ba ñëpp di ko jàmbat te nag daa bokk ci banu maxsuum ñooñu bokk ci Quraysh muy giirug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci famille yonente bi yonente bi sallallahu mer saabatu bnu mi nga xam ne yonente bee ko bëggal boppam ne bis boobu yonente bi dafa mer ba mel ne xamatuma mu ne ma ndax da ñëw di tilu ci loo xam ne àtte bi yàlla la daa dina ko waat naa ci yàlla ne Fatima bint Muhammad sama doom man su sàccoon danaa dagg loxo kon loolu mooy lislaam amul ku mag ka amul ku ndaw ka amul kii mooy doomi président bi amul kii mooy rakk président wala xaritam képp koo xam ne tooñ nga tege na ci sa kaw rek yoon daa war a tege ci sa kaw noonu lay dox su amatul maandu amatul justice amatul dafay daal di fës mooy réew bu tas ñaareelu gënn bi moo di lislaam ci boppam dafa bëgg sutura ci nit ki ki mooy yàlla suturaal boppam borom bi tabaraka wa taala mën na koo suturaal su jéggaloo sunu borom mën na koo jéggal xoola ndaw ki nga xam ne dafa ñëw wax ne dafa njaaloo sonne ci noonu ngir ñu mën a teg atte bi ci kaw di dem di dellusiwaat di dem di dellusiwaat ba nga xam ne ay at ngir mu bëgg ñu teg loolu ci kaw te ndaw soosu xam nañ ne ginnaaw dafa ëmb am na góor gu ko ëmbal kenn laajut ku mu doon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon na ko wane ko ku mu doon mu ne ko diw sàngam la ndax xam na ku mu doon waaye kenn waxul lu jëm ci waaje nga xam ne moo ëmbal ndaw si dañoo bàyyi mbir ma noonu ne cell ndax amaana ku mooy yàlla la koo xam ne tuub na yàlla jéggal na ko mu jeex moo tax kenn laaju ko kon acte bi l'islam ak yërmandeem day feeñ foofu ci ne l'islam jógul di di seet nit ñi pour andi leen ngir mën leen a mbugal wala mu rey leen wala mu dagg seeni loxo que sutura tege ci kawam malaanum sutura di tege ci kawam l'islam du ko yiri du ko yëkkati du ko muri li fekk moo ñëwal boppam waxal boppam ne nii la wala naa la wala ay témoins yi gisal ko seen bopp li waral loolu moo di moykati yàlla yi li nit ñu bare bari defee nga xam ne jàpp nañ ne rek képp ku xas dugg ci mooy yàlla naan na sàngara jaaloo na def na nangam ñu ne kooku alku na génn na ci diini ji dafa mel ne laa ilaha illallah amatu soxla ci xolam loolu njuumte la bari na ñoo xam ne ñu ngi nuur ci ak mooy yàlla te fekk yiw wu bari mi ngi ci seeni xol waaye dañoo jëndi koogul rek yiw wu bari mi ngi ci seeni xol xam nañ ci société bii nu nekk ñu bari ñoo xam ne dugg nañ ci ay mooy yàlla tuub génn ca loola borom bi tabaraka wa taala bi leen ñu bokk ci ñi gën a baax ci nit ñi xam nañ fii nu toll nii ci ay nit ñoo xam ne amaana bu watul ñàkkul ñu may dégg ci ñoom ñoo xam ne xutba nañ fii ab xutba ci àq ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo nit ñi ak àq ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy liggéeyloo maanaam surga sa ak seen i patron xutba boobu ba mu jàllee ay patron ci seen bopp woo nañ ma ne ñoom de am nañu doon liggéey ci seen biir ñoo waaxu seen bopp ba ñëw ne leen ñoom am na luñ daan jël ci seen lañ leen doon dénk loola dañ ko koo bëgg a fay wala mu jéggal leen ko ñu wan leen leen loola jéggal lañ leen ko kon ba léegi xeet wi xeetu mbaax woowu mi ngi fi jeexul jógu fi kon bul jàpp mukk de ku tàbbi ci mooy yàlla wala mu nuur ca dafa doon boo xam ne alkure jeexal bi déedéet buntub tuub bi mi fi buntub mbaax a ngi fi te amaana sax jamono yëpp nekkee ci biir loolu téewul ak mbaax a ngi fi bari aana ay nit ñoo xam ne ci ak càggante la ñuy xëy di ci gont ay garam place ak ay caaxaan ak ay yoo xam ne yu tekkiwul dara la waaye su kenn ci ñoom taxawoon fi béréb dégg ku ŋàññi diine wala mu saaga ko wala mu doyadal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala kenn ci ay saxaabaam pare na pour xeex ak kooku ànd ak càggante yam nekk waaye loolu mun koo muñ kon jaadu na ci wootekatu lislaam ak jàngalekatu lislaam ñu jariñu ci mbaax gi nga xam ne imaan bu fekkee ma nga ca xol ba donte cër ya sàggan nañ imaan nga ca xol ba ñuy fexe ba loola ñu yokk ko yëgal ko borom fexe ba lam nekk ñu génne ko ca ndànk ci ak yeexe ak ku xamal fexe ba mu ràññee xam la baax ak la baaxut xam li koy yàqal ak la baax te moom mbëggeel googee mu làq ca biir te feeñu ci cër yi mu fexe ba mu feeñ ci cër yi ndax kat nit ki mën naa nekk ci lu noonu ba noppi mu feeñ ci cër yi am na koo xam ne dañ ko daan indi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy naan sàngara su naanee sàngara bu ñëwee rek ñu dóor ko mu demaat bu ëllëgee ñu indiwaat benn bis ñu di ko indi am ku ne kii de yàlla na ko yàlla rëbb laanahu llah ma aktar ma yukta bihi kii yàlla na ko yàlla rëbb bis bu ne rek ñu andi ko ñu koy dóor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bu leen rëbb seen mbokkum jullit ne leen ma aalamu illa annahu yuhibu allah wa rasulah li ma xam ci moom de mooy ku bëgg yàlla la ku bëggu yonentam la xoolal loolu koo xam ne ma ngay naan sàngar ñi di ko dóor waaye teewul bëgg yàlla akub yonentam mi ngi ci xolam kon kooka la ca des mooy mbëggug yàlla googu ak yonent bi ñu won ko nan lay def ba mu feeñ ci cër yi soo yàkkamtee daal ne yàqu na daal koy atte sànni ko noon yi jël ko faf yàqal ko faf la nekkoon ca xol ba mën naa dem ba yàlla su ko defee dimbalante boobu mooy doon loo xam ne lu jaadu la ñiy woote dañu war a dimbali ñi sàggan li yasdaadu imaanan ngir ñu mën a dolli ko ngëm yàlla waaye ñu leen xeex seen ngëm di dellu gannaaw ba faf ñu bàyyi diine su boobaa lor lay doon اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآنس وحشتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد mbokk yi noonu dellaat di sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam mu tedd bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaan yàlla comme niñ ko woon mu def ni si ñi nga xamante ni yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana ñi nga xamante ni dañuy dégg wax buñ ko déggee ñu seet li ci ëpp li ci a rafet ñu jëfee ko euh, di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fayal ñu sunu docteur Mouhamed Ahmad Lo ci xutba yu am solo yooyu mu joxee ko dinañu suñu mbokk way daw di yàlla subhaanahu wa taala jéggal leen fa ñu nekk yërëm leen eh, tabal leen ci albinaam yu kaw dugal leen ci géeju yërmandeem di ñaanal mbokk yi nga xamante ne ñooy eh, ñoo nekk ci ay jafe-jafe ak xat-xati àdduna yàlla subhaanahu wa taala tegg leen ko te loolu yomb borom bi subhaanahu wa taala di ñaanal ñëpp ak fépp bu ñu nekk ci àdduna eh, yàlla jàmmal leen musal leen te yàlla wërsëgal ñëpp lépp lu baax incha allah rabbi kon yéen ñu daan faral di déglu ci rajo bi mën ngeen ñoo déglu ci seen portable téléphone ci numéro bi ñu leen di dégtal mën ngeen ko déglu ci seen portable téléphone numéro bi mën ngaa composé 213 492 01 34 2 1 3 4 9 3 01 34 ku am lu nga xamante ni da nga koy laaj wala génneeku bi nga xamante ni am nga ko ci bi nga xamante ni moom mooy xam sa diine wala ci website xam sa diine wala am na ay nasaih ak ay dénkaane ak ay laaya biir yu nga xamante ni bëgg kaa laaya laaya biir mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk rajo bi nga xamante ni moom mooy rajo xam sa diine mën ngaa composé numéro bi mooy 31 52 77 25 15 31 52 77 25 15 kon ñu di foofu di jox ak yéen uh, dig daje ci ay bés bii di ñëw incha allah rabbi ngeen àndaloon ak seen mbokk Mouhamadul Amin ci présentation bi Abu Khalifa ci technique bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا